bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ñu bàyyi xel fu mën nekk ci àdduna bi yëpp ñu ngi baax di leen ziyaara di leen balaq baax di leen ziyaar bi Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké mi fi nekk Seexul Xaddim di ko ñaam yàgg fi loolu te ak njëwoo Seexul Xaddim gi yëpp ci barke Seexul Xaddim mu mel ne ñoo ngi fi ci Touba Bolzano ci bis bi nga xamne ne lañ baxu amal muy tiant cheikhul khadim ren nag doon juróom ñettel yoon ñukoy amal ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaha mom Cheikh Mouhamadul Basir mi fi nek cheikhul khadim yàlla def nag ñu am tawfiq togaat ak suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ maam Cheikh antam Mbacke mom Cheikh Amadou murtada Mbacke mu cheikhul khadim at mu nek wax deug yalla muy dag ay yitem yep di tew si bis bi di and ak mbokki talib yi nga xamne ño nek fi Touba Bolzano kon dañ koy jox kaddu gi rek mu nuyo ak mbokki talibé yi kon señ mam Cheikh ñoy ciar bax bu di la jox sa wàcciwaay di la ñaan yàlla ya, mam taxaway yag nga yag fekk bis bi yag ko and ak ñun ci barké Seexul khadim ci barké sa wajuru tedd wa al mujahid akbar cheikh Ahmadu Murtada Mbàkke ibnu Seexul khadim señ mam Cheikh bismillah mbokk jullitu àdduna bi mbokk talib bi auzu billaahi mina sheytaani bismillahir rahmanir rahim mbokku jullitu àdduna bi yëpp ak mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ca di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi ki fi nekkal sëriñ Touba ca mati ko sëkk muy Serigne Mountakha mu Cheikh Mouhamadoul Bachir damay wax ne yoon wi day mës sa màgget waaye beesaat na peq damay faral di wax ne jigéen ñi ci yoonu murit ci tënk rekk nañuy xool ci ku baax ka di Soxna Jaara Buso ku ci xool de doo jëf dara ba naw ko ndax pëssee fa mag mbaaxam waaye damay wax ne jamono bi ñu nekk itam képp ku xool ci sëñ taxa ci pësseefam ci bëgg xam-xamam ci ragal yàllaam ci oyofam defe naa ne danga nga beesaat peq kon yàlla na ko yàlla dëgëral ñu ngi jiital ci nuyoo bi itam ki nga xam ne moo nekk jiite kër Cheikh Mamadou Moutada muy sëriñ Mamor mu Cheikh Mamadou Moutada waaye sëñ bas mii nga xam ne mooy taxawee bis bii la ni sëñ Muntaxa mu baax ma di yeesale mag ñi moom itam ndaw ñi noonu la leen di yeesale ñu ngi koy jiital ci nuyoo bu baax bis bii ñu bari ci Europe dañu fiy daje waaye dañu fiy jàngewaat ab yar jàngewaat fi ay teggin euh, jàngewaat fi pëseef man sama bopp de wax dëgg yàlla su ma egsee dama fiy soñoowaat bu baax kon ñu ngi jiital sëñ Bas bi nga xam ne mooy taxawal bis bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral ca lépp lu nu fi def itam suñ borom ba nangu ko tabaraka wa taala euh, Italie nag dafa nekk dëkk boo xam ne maanaam damay faral di wax ne ñoom de dañuy ay royuwaay royuwaay lañ loolu la suñ borom def ndax dëkk bii mooy capitalu nasaraan ci àdduna bi waaye wax dëgg yàlla pëseef bi fi ne ak taalibe gi doo ko gis fenn nag fep nag la sëñ bi nekk foo dem ci aduna boo demee ci gox yi boo demee biir Sénégal nga dem Fuuta nga dem Kajoor nga dem Bawol nga dem Siin nga dem Saalum pëseef baa nga fa ci Italie nag pëseef bi nga fay gis mag la kon yàlla na ko yàlla kon ñu dollee góorgóorlu ci nekk benn ni ñu suñ borom di wax ci alxuraan waatasimoo bi hablillahi jamian wala tafaraqo jàpp ci buumu yàlla gii lislaam ca bañ a ci inamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum maanaam jullit ñëpp ay mbokk lañ ca nañ rafetal mbokk gi loolu kilifa yu baax yëpp dañ ci daan dox Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo njëkk a wax nañu bu leen noonu kuy wax laa ilaaha illallah suñu waay jur di suñu sëriñ ba Cheikh Mamadul Murtada lii nga xam ne Cheikh Sidil Muxtaar mu baax mi def na ko ci woote bennoo kenn jiituwu ko ci woon ndax daf daan wax ne lislaam këru lislaam léegi rek laa koy wax ay nasaraan bi may ñëw ci train bi ma ne leen biñ ma laajee ne ma yow ci ban diine nga bokk ma ne leen man diine yi lislaam ci laa bokk waaye nag diine yi lislaam ñun yoon wiñ ci jël yoonu jàmm la maanaam yoonu yoon wuy wane jàmm jàmmoo ak liggéey rek mooy doxalinu suñu yoon ñun yoon wi nga xam ne moom ci la ñu nekk muy yoonu lislaam di yoonu xaadimu rasul may leen diine yi jàmm la jàmm ak liggéey jàmm ak liggéey rek kon mbokk taalib yi nekk ci Europe rawatina ci Italie gi nañuy góorgóorlu ci wane jàmm jooju nga xam ne moom la Xaadimu Rasuul wane di góorgóorlu ci luwaay luwaay ya nga xam ne mooy moom la nasaraan bi tëral ñuy góorgóorlu ci bañ a tooñ luwaay yi maanaam wane itam jàmm ji nga xam ne moom la Xaadimu Rasuul indi ca jàmm jooju mooy ji nga xam ne moo ñuy jàmmal fii ci àdduna jàmmal nu ci àllaaxira mooy buñ tooñ ca ku ñu tooñ ñu baal la kon loolu yàlla na ko yàlla dëgëral. Bolzano nag wax dëgg yàlla réew mi yëpp am nañ pëseef waaye fu leen ëpp pëseef day du yomb ca loolu itam dañ ciy sant sëñ Bas maanaam moo ko doxee wan leen ko tàggat ci ndaw ñi ndaw ñi tey jii fu ne lañuy ñuy jóge ci Europe macha allah waa France ñëw nañ ak yeneen dëkk ak ci biir réew mi fu nekk ndax cofeel gu ñu am ci sëñ Bas ak taxawaayam bu rafet ak pëseefam dañu ñaan suñ borom dëgëral ko bu baax a baax waa tele bi kon Touba Milano ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di sant daayira yépp ñi ñëw ak ñi ñëwul ak ñi yéenee ñëw ngeen xam ne yéen ndawu Europe ak ndawu àdduna bi sëñ Bas mi ngi liggéeyal fii maamam ju baax ji di Xaadimu rasul ca liggéeyal maamam mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy liggéeyal suñ borom mi ngi liggéeyal suñ borom ci ndaw ñi yàlla rek tax ñu di ko wax waaye mi ngi liggéeyal suñ borom ci ndaw ñi ndax ku ne xam na ne fii mooy nooru Italie mooy dëkk bi gën a nekk ci Italie bu fi defutoon lii dina doy waar lool leneen moo fi am kon nak Mbàkke ñu ngi la ci sante bu baax di la ci gërëm di ñaan suñu borom dëgëral taxaway bi lool lañ ñëwoon ñu ubbee ko ci rek di sante ñëpp nak di gërëm ñëpp euh, jërë wa salaamu alaykum wa rahmatulah. Euh, jërëjëf señ maam Cheikh euh, Mbacke ibnu Cheikh Murtada kaddu yu rafet na matalena ñu ñaan yow di yalla yàggal lool te wëral la ndax wax at mu nekk saay bis bi jupsé fo man di nekk wax di yalla da ngay bayyi loolu lepp ñëw ànd ak mbokk yi nga ñoo nekk ci Touba te Cheikh Basir mi jiite wax dëgg yàlla ci taxawaay bu rafet bu pësteef bu comme ni nga ko waxee waaye xam naa ko dañ la jox kàddu gi rek xam naa nga soññaan ndaw ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir liggéey bi ndax soo xoolee liggéey bi dafa mel ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñoo koy taxawee ay ndaw lañu ñoo xam ne borom pas-pas lañ comme ni nga ko waxee waaye ay ndaw xam tamit ñu bëgg Seexul Xadim lañu ñu am pas-pas tamit di doxee doxin wi nga xam ne moom la sëñ bi tënkoon ne ku ko yaakaar na ci doxe noonu yi kon de xam naa boo ñu mënee fàttali xëy na doxin woowu nga xam ne sëriñ bi bëgg na ndaw ko yaakaar doxe ni ba mën a am ngërëmu sëriñ bi ak it gën a amaat pasteef saa su ne ci liggéey bi rek xam naa soññee yooyu tamit ñoo ngi koy dagaan baax a baax Mbàkke Balla waaw léegi euh, ci loolu ndaw ñi moom ni ma ko waxee rek ku baax kii nga xam ne moo fi nekk euh, xalifa bu sëriñ Tuubaa di sëñ Muntaxa doxinam ku ci jàngat rek doy na sëkk maanaam bind ne xam ne noonu la def euh, ci wàllu fonk xam-xam pëseef bëgg sëriñ bi bëgg xasaayit lool doyna na sëkk dëkk bi ñu nekk dëkk bu doy war la bo xam ñun xam nañ fi lu bare bare ak ci yeneen dëkk Europe bi ak ci Afrique ak ci aduna bi waye aduna bu jaxaso la bo xam lepp du luñ mëna wax ci média yi waye daal liñu sëñ bu mag bi Khadim Rasoul wax ci biir mbindam yi nañ koy jang diko xol ci diko jëfé rek lool rek mom moy mbir mi ci xamne nit fo nek ak lum ruqé ruqé ruqé ruqé boo fa wéetee ne lu ma neex defit xamal na suñ borom mi jàkkaarloog yow euh, nañu ko Cheikh Mamadou Mourtada daan waxee rek mooy góorgóorlu ci ndigal yi bàyyi tere yi ndigal yi xam nañ ko xam nañ tere yi ndax tere yi moom mooy lépp loo xam ne soo koy def doo bëgg ku la fekk rek moytul loola euh, yéen nag dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ndax amu leen li ñuy wax complexe fu ñu leen fekk ci loolu seigne bass bi macha allah def ci ndaw ñu bari fi ci gox bi fuñ leen fek seen yere bañu ñoo seen seen yëre olof nek ci seen melaw talibé ak seen melaw julit bari na ñoo xamni ci seen ñak xam lay lay nga gis leen sax ay bennet la nak bari wul waye ñom dañ lay saxaru nuyu wala ñu rus la xamiku wax la lang bi nga de lool nak baxul lool itam ma ngi ci ñaax ñep ci xamne li nu am dara gënu ko muy diine ji ñu am ak yoon wi ñu am. ak askan wi ñu am ak réew mi ñu am waruñoo taxaw di complexe ci kanamu kenn kon jàppante ngir yàlla xam ne boo dajee ak sa mbokkum jullit nuyu ko dalal ko amal ci moom fula bu am na ñoo xam ne dama yàlla jégal nag bariwul waaye léegi-léeg nga romb leen ci gaar yi wala ci yenn gox yi dañ lay sax rusa nuyu wala ñu rus laa euh, wane ne maanaam daal ay sénégalais la ñu wëkki loolu nag baaxul loolu baaxul waaye yéen ñi nga xam ne di yéen a ngi topp ci sëñ bas ngeen di liggéey loolu nekkul ci lol mom ñu leen koy sante kon dal nit ki fum nek nekk rek na wéttalikoo yàlla wéttalikoo sëñ bi ca xam ne loolu rek mooy jariñ tëla tey ak ëllëg leneen lu dul loolu rek du dara waaw jërëjëf euh, sëñ maam Cheikh kon melam na yi ñoo doon bàyyi xel bi TV kon ki doon àddu sànq rek mooy sëñ maam Cheikh Anta Mbacke moom Cheikh Mourtada al Mujaahid Akbar fi ci Touba Bolzano ci cant nga xam ne la daayira mat la seen di taxawal ci taxawayu Cheikh Basir mi nga xam sa sunu mokoy ne muy seigne Bass marakhib ñu ngi sant ñëpp kon di leen gërëm xamna naa sëriñ bi di ñaan yalla yag taxaway ñu yag ko fekk yag ko and ci barkeb Cheikhul Khadim barke Cheikh Mourtada mi nga xam ne tey lépp loo xam ñong koy dund fi ci Europe ci l'islam tawé ko Sëriñ touba rek wax deug yalla ab liggéeyam ko ñu ñaan tamit Sëriñ Mourtada yalla yok ay leeram taas ci barkeem yagal fi timit tawam bi fi nekkal Sëriñ Mamour Mbacke mom Cheikh Mourtada ko defé ñu fàttali itam bu baax rek 8 juin boobu nga xam ne moo nekk euh, Brescia ca xam ne bisu bépp jullit la bisu bépp taalibi la damay faral di wax ne 8 juin nekk na lu nga xam ne ñëpp ci war a jàpp ca xam ne bisu Serigne Touba la bis la boo nga xam ne moom it moo bisu Bolzano bi mën naa dem sax ba war a mën a mel ne aju Makka wala mu jege ko ca boobaa njariñu tubaab yi la njariñu diine ji la ndax Xaadimu Rasuul jàmm ji nga xam ne moom la euh, moom la moom la yor moom la boot dañ ko war a woon àdduna bi yëpp ñu roy ci ndax àdduna bi yëpp jariñu jërëjëf jërëjëf Mbacke kon mbokk yi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp kon di noo ko salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf